kon fu ñuy fàttalikoo ñu baax ña rek yërmande sunu borom di fa wàcc yenant bi sallallahu alayhi wa wax ni man araxa waliyan faka annama ahyaahu képp koo xam ne yaa ngi fàttali waayu yàlla wàllu sunu borom ngay fàttali dundam ginnaaw bi mu matalee liggéeyam ba génn àdduna yaa ngi mel ni ku koy dekkalaat loolu la yenant bi wax man araxa waliyan faka annama ahyaa'u sëñ abdoulahaat bokk ci góor yàlla yooyu alquran misaaloon ni minal muminina rijalun saddaqu ma aadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila saddaxlaahul azim ñooñu yàlla wax ni am na ci jaamam ñi ñoo xam ni ñu gëm seen boroom lañu di ay góor yàlla kaamil yu ko gëm yoo xam ni li ñu waxante woon ak seen boroom bi ñu ñëwee ci dundu àdduna matal nañu lépp waruñu ci benn yoon dëggal nañu jox ko yàlla seen boroom sëñ Abdul Ahad bokk ci ñooñu nekk gi doomi sëriñ Touba moom di leneen ndax fi yàlla teg Cheikhul Khadim sëriñ bi xam ngeen ni benn gis-gis rek la am mooy yàlla boroomam jaamu ko ngën gaa rafeti jaamu yenent bi sallallahu alayhi wa di royu mu sopp ko sopp koo xam ni jaaxal na képp ku gëstu sañ Tuubaa cofeelam ci yenant bi dégg ngeen mu wax ni àgg naa ci bu ma fekkoon yenant bi bëgg a jël tànkam teg ko ci dég wala mu bëgg koo teg ci jiit bu koy fitt man Cheikhul Khadim dinaa jël sama lex bu tedd bii ci sama kanam lalal ko yenantu bi ci ndëggu tànkam mu jaar ci ba mën a mucc ci dég bu ko nar a jam xaddi wiqaayatun li rijlil ba an sawkatin wa ma yudaahi aqraba mu dellu wax ni sama lex man sëñ Tuubaa def naa ko mu nekk ci diggante dàllub yanantu bi ak suuf si muy joggi aka neexoon sama lex seey ci diggante boobu yanantu bi jaar ci di joggi dem xaddi jaaltahu turaaba naalihi yaa laytahu la xasani bi fadlihi kon foofu la tegoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran nekk wéttalam ci lépp moom cheikhul xadim mu wax ni alquran lay teg ci samay lal ànd ak di ko sotti gëtt gi gën a neex ci sama jamono ànd ak sama jëmm ji ma tëral ko ci suuf jël waxi sunu borom teg ca kaw lal ya gën a tedd naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa halili wa kunta xablu tabibi anta izi wa mafhari anta jaahi anta kansi ya fahra kulli labibi naan téere bi kitaabun karimun min karimin mukarramin li abdin karimin nawwara sarqa wal garba kitaabun majidun min majidin mumajjadin li abdin majidin qad ala al ujma wal urba kitaabun azizun min azizin muazzazin li abdin azizin doonahu man hawa qurba fa tuuba li abdin yaabudullaha rabbahu bi tartili qur'anin azimin yaqi karba kon sëñ Tuuba ci diggante bii la nekk yàlla boroomam yenant bi sallallahu alayhi wa sallam alquran yëkkati gi mu yëkkati nag alquran nee na alquran moo ma far yëkkati man sëñ Tuuba yëkkati goo xam ni far na ma jiital te képp ku bañati sama jiitu alxuraan moo lay detteel rafaanil quraanu rafan xafada man saahu taqaddumi fan xafada kon fii la sëñ bi de koo koy wéejuru sëñ Abdul Ahad wax naa leen léegi soxna su tedd si niy wax soxna Mariama Jaxate mooy wéejuram bu jigéen fekk baax fu ñuy wax méew nu Jaxate sëñ méew nu di maam yi sëñ Abdul Ahad di sëñ Moodu Astu Jaxate denc ci soxna Njeng Silla am ci soxna Mariama Jaxate soxna Faat Jaxate seen mbokk ya sëñ Abdourahman Jaxate sëñ Balla Jaxate sëñ Mbàkke Jaxate sëñ Amsatu Jaxate seen mbokk yooyu kon ci askan wu tedd wu màgg fa la sëñ Abdul Ahad fekk baax foofu mu fekk baax nag alxuraan a nekkoon seen lépp teel a mokkal alxuraan dundelu lew am na lu mag ñi daan wax ca démb ñaf nangu muy xeetu galak buñ daan laaj imposé la ko par force sëñ Tuubaa bi muy wut ci dëkk bu tedd boobu ñu mu àndal ci liggéey bi muy defal boroomam dafa yebal boroom daaru ni ko wutal ma soxna soo xam ni juróom-yaari maamam yépp dañuy dunde lu lew mokkal alxuraan te sàmm di néeg bu ñépp di seet ngor ak njub ak bëgg yàlla foofee la njaboot googu bàyyi ko mu am ci sëñ Abdul Ahad wax naa leen léegi altine la gane àdduna nuroo koog yanant bi sallallahu alayhi wa sallam mu gane àdduna njaareem xam ngeen ni njaareem mooy dëkk bi sëñ Touba gën a yàgg ci Zahir fukki at ak juróom sëñ Touba njaareem képp la ko def ci li xam ci àdduna te man mi wax ko xam histoire sëñ Touba la. man naa koo commencé la jiituy maamam. ba keroog bi mu wàccee liggéey dara lu ma ci ump daal amu ci kon gisuma ci benn dëkk fu sëñ Tuubaa yàgge ni mu yàgge njaareem fukki at ak juróom ndax Mbàkke Bawol la gane àdduna moom sëñ Tuubaa ci 1853 wala 52 muy ama saraa ci gàddaay gi dëppoog 1852 wala 3 ñu tuddee ko sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Sall nekkoon sëriñ bu jàngal wéejuram Maam Mor Anta Sali mu waxoon ko di nga jur sango jamono su ñëwee dina liggéeyal yanant bi liggéey bu ko kenn mësta liggéeyal turam dina wër àdduna bi yépp dama bëgg nag nga tudde ma doom jooju ngir fu turam àgg ëllëg sama tur àgg fa ñu tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba sàll moomu mu nga fekk baax fu ñuy wax Bamba Call daa am Bamba ak Bamba Moodi Bamba Call la fekk baax sëriñ bi feeñ kon Mbàkke Bawol diir bu gàtt la fa def ay wéejuram randu fu ñuy wax njax ca xuru mbàkke sëriñ bi sunuy nopp li ñuy wax bootu foofa la ko defe fala maam jaara wéejuram wa téye woon sàkket wa dem naa ba foofee def fa waxtaan am na at moo xam ni sëñ Abdou Samad mu sëriñ Soyibu dafa bég ca waxtaan ba jox ma ca biir màkka defe naa sama aj màkk bu mujj foofa la woon kon foofe di xuru mbàkke fa la sëñ bi defee li ñuy wax ak raw ginnaaw bi nag la tafsir Maba Jaxu Ba woote ca Ñooro doon xeex ak tubaab bu ñuy wax Pinet-Laprade loolu mu ngi am 30 novembre 1865 ca fu ñuy wax Paoskoto ci xuru wu wax xuru Paate Badiane Maam Mor Anta dem wuy ji yóbbaale njaboot gi kon sëriñ bi lii ko yóbbu Saalum lii moo waral tam maam jaara bu sa des poroxaan ñu ko fay ziyaare tey bañ fa jógee dañoo jël si paataar baayam ñëw fa indiwaale njaboot gi def fa ab diir di attel Lat Joor Ngoone Latiir Jóob gennaaw bi ca Lat Joor ñëw déqale indi capitalam Sogeer a ah, Maam Mor Anta ñëw dëkk dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor ñaari at la fa def ba ci ñett sunu boroom jël ko mu bàyyi fi njaboot gi ñu denc ko déqale keroog bi ñu dencee Maam Mor Anta ba noppi ki ko doon jullee mu ngi tudd tafsir ma ndumbe maar sill di sëriñ tay ba sill moo ko jullee ba mu àggaleet keroog la ñépp xam ni sëñ Tuubaa amul morom ndax tey li gën a neex ci àdduna te nit ñi wut àdduna ko Macky Sall fëggoon ci ñun ñi ñuy wax oustaz ak i borom xam-xam ni laa sëñ Ablaye dama bëggoon nga ñëw nekk sama conseil dans les affaires religieuses dinaa la jox benn double cabinet bu la yóbbu foo jëm naa la defar passeport diplomatique saa boo bëggee tukki dem dootoo wuti visa dinaa la defal salaire boo xam ne weer wu dee ma jox la 2 million dana la tabaxal kër jox la say caabi wutal lay garde corps su may dem damay fëx ah su may dem damay fëx ah su dem kon dañuy fëx xool leen nag sëriñ bi jamono biñ ko waxee li gën a rëy ci àdduna di buur moom la ñu bëggoon nga dem àndeek moom mu teg la ci place bi mu tegoon sa wéy jur nga nekk xaadim di ko atteel jurisconsulte su boobaa dina la jural nga am ay tool am ay jur am xaalis xool leen li sëñ Tuubaa tontu ñaari xasaayid la bind ci boobu jamono benn ba dani xaaloo safihun li sarfi anhumu basari benn ba muni ni xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini taws jawaisa tourni kulla maaxiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya al ilmi wa walastu arju wala aqsa siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini ana ufawidu ahwali liman ajazu an haali anfusihim ajzal masakini ne ñu man sëñ naa dem jaxasoo buur mu ne ñii xamuñu ma man rus naa séqi sama tànk bii benn jéego dem ci buuru àdduna ngir teraanga jum ma jox xool leen nekkoon man rus naa dem jaxasoog buur bi gën a rëy ci àdduna ngir ndimbal man sëñ Tuubaa kenn rek ka yor sama ndimbal muy yàlla azza wa jalla su ma jaaxlee moo ma koy fajal su ma amee aajo moo may jox li ma bëgg man duma jaxasoog ñoo xam ni seen kër ga mooy jardin satan mooy rawdu seytaane nu may jaxasoog buur yoo xam ni lépp àdduna la yem te gis buur bu mag bi nga xam du fi jóge muy yàlla mi ma sàkk gërëmuma lu dul diine gërëmuma lu dul xam-xam fii rek laa nekk keroog la mag ñëpp nag ni dëgg-dëgg dañ ko doon tuumaal naan xel mi daa manqué waaye daf noo raw ndax sangam ba yanant bi jaaroon na ci ba yàlla addu daal di koy xulool wa ma saahibukum bi majnun seen àndaal bii ngeen tudde dof moom yanant bi doful da leen a raw rek kon sëñ Tuubaa ni d'accord naa su dee dof la ngeen ma tudde waaye man du ma war mukk daara du ma war mukk li ma yàlla jox dénk ma ko muy mission bi dem di daje dajeeg buur ngir lu ma foofa la sëñ bi nekk ca paataar ba seen rakk sëñ Masamba Mbàkke fa la gane àdduna keroog ñu koy tuddi ndox amul dañoo tiim moog maam Cerno rakkam maam Cerno 80 ans la dund ñaari yoon la mës a tiim bi mu amee ndox da koo fayal boobu la ñuy tuddi sëñ Masamba Mbàkke bañ fa jógee sëriñ bi jógee mbakke Kajoor foofee la taxawale yoonu murit ci ndigalu yanant bi bi fa sëñ bi jógee Daaru Salaam la sanc ñetti at la fa Cheikh Mat Bamba def muy 1880 cinq ba mille 1888 mu jóge fa dem sanc Touba Touba sëriñ bi juróom-ñaari at la fa def mille 1895 la ndogal bi dal ci kawam mu génn dem Mbàkke Baari Jolof Mbàkke Baari Jolof la déparé suba teel bisu gaawu samedi tolloog 10 août 1895 18 safar gi ñuy màggal tey foofee lañ ko indile fas wu tudd Awnullaahi keroog la jël loxo teg ci bopp sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha am fukki at mu jël loxo teg ci bopp sëñ fàllu sëñ fàllu am juróom-ñeenti ataki mu ni dénk naa leen yàlla ak rasulullahi ak seen bàyyi cerno l'islam la ñu poñe maa war a dimbali islam ma dem te ñëw Sénégal gépp am jàmm départ baar Baari Jolof fajari gaaw jaare ji fu ñuy wax jeewal tund jeewal toroxal fa soytaane jàll fu ñuy wax kokki jóge fa dem Louga de fa jaar ba ni mu demee Ndar mu ngi fa dem altine le 12 août 1895 38 jours la sëñ Touba def ndar julli bureau gouverneur ñëw Dakar 19 septembre bi su alxamis fanaan fi ñaari guddi daj fi coono yëpp embarqué le 21 septembre 1895 mu julli ci géej gi jàll fu ñuy wax Conakry jaar ji fu ñuy wax Benin dem fu ñuy wax Grand-Bassa ca Côte d'Ivoire jàll fu ñuy wax Gabon ca Libreville jaar maa yomba def fa 5 ans ci àll bi terminé 2 ans ci Lambaréné ne si 11 novembre 1902 ci Dakar. maa ngi ci sëñ Touba keroog bi mu ñëwee le 11 novembre 1902 bato baa ngi costé 10 heures ci suba ba 16 heures kenn amul certitude ni sëñ Touba ñëw naam ñëwul ndax ragal tubaab ku toog da ngaa toog di yang ànd ak tiitaange ànd ak jaaxle ànd ak taaxeerlu ànd ak yaakaar ak espoir waaye bi ñu toogee ba 16 heures jot la benn tubaab daal di wàcc wàcce benn échelle ne ana maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan mu ni maa ngi mu ni sëñ Bamba na nga ñëw wuyu mag ñëpp sar xoole ni sëñ bi ñëw na maam Cheikh Anta 1 mètre 95 la tollool mu ne ci ay këyitam 1 mètre rafet lool di fari keroog moo fekk Cheikhul Khadim ci biir bato bi sëñ Tuubaa ngi sol mbaxanem curu cara féete penku gàddu xaritam alxuraanul karim yor fulkul masoon ni mëkk jàkkaarloog penku bi xibla jóge ci tukkeem bu tedd maam Cheikh Anta bi mu nee tëll mu ngi fekk sëñ Touba di jëmm ju tuuti di nuru sëñ Abdul Qadir jëmm ju rafet di nuru Cheikh Mouhamadul Bachir tuñ ji daa jib ba xonq coy di nuru sëñ Modou Moustapha ak sëñ Mourtada baat bi suy wax daa bar di nuru sëñ Fallou yaram bi daa jëxam ak karaw di nuru borom mbeleel sëñ Abdul Ahad ñuulaay bu rafet di nuru sëriñ Sohaybou Mbacké tedd ngeeg sëñ Ibrahima Mbacké ak sëñ Abdou borom dër bi baatinub sëriñ baara Mouhamadou Lamine waaye dënn bi day riir buy wax ndax ragal yàlla niru sëñ saaliwu mu waaxu ba àgg ci moom ni ko jàpp loxo mu ni ko seex mu ni ko mbàkke mu ni ko namoon naa leen seex anta mu ni ko mbàkke mu ni ko teguma cin tegaluñ ma cin soxlaalu ma tubaab yëkkati naa islaam sagal naa yanantu bi ba àdduna di tukki lislaam dina bërëx fii ci senegal kenn dootu ko fay seex mu ni ko mbàkke mësumaa faat waxtu saa su ma jullee waxtu dama koo jàppul seex tubaab bi wan naa ko loo xam ni ba àddunay tukki di ko nettali seex anta mu ne ko mbàkke mu ne ko waat naa wàcc naa wàccaaleel képp ku ma yaakaar tey ak ëllëg jóge fi nag dem ndar yónni maam seex isaa jenn borom jenn ak lagan ni ko demal ca cerno ngeen daje neel na ma fekk ndar fukki fan ak juróom ci saxbaan di baraxlu la dajeek maam cerno ume ji koor kër sëriñ seex coro mbàkke ca Louga ñeenti fan mu jàll bari jàmm siise juróomi fan mu wàcc sànnoo si kër sëñ séréloo di leen jiite naafila ba kori mu jóge fa jàll ñaxal seet sëñ Ahmadou Mokhtar la jóge fa jàll ndumbe kër ndumbe xëri Jóob jóge fa daal di jàll Màkka Baabu jóge fa jàll Mbàkke Kajoor ziyaara rakki baayam jóge fa jàll le 21 janvier 1903 Daaru Salaam maam Cheikh Anta ganale ko door dem daarul man naan ñu attaqué waat sëñ Touba tuumaal ko daa yónni woon maam Cheikh Ibra Fall ak maam Cheikh Anta ñu koy wutali ay lal ak i meuble ñu jënd ko ndar def ko ci ay saaku sëf ko ci gëléem di ko indil sëñ bi ñëw ba ci yoon wi benn pël bu ñuy wax Demba Ngari làmbu tànke lal yi daal di gaaw comme agent secret la mu déclaré ci mbaaxaan ni sëñ Touba dafa yónnee ay arme ngir xeex ak tubaab bi ko génnewoon ñu clamé ko tribunal attaqué ko indi ñaari décision pour yóbbu ko Madagascar soit wala ñu yóbbu ko Mauritanie finalement Cheikh Sidiya Baba laaj ko Mauritanie sëñ Bamba dem gànnaar def fa ñeenti at 1903 ba 7 ñu indi ko résidence ci Thiéyène Jolof mu nekk fa 7 ba 1912 mu ñëw njaarim ramo masiri ila njurbel la daa lasasin law aayonoo sirrama fi sayrima ramo bi mu ñëwee njaarim nag fa la def fukki at ak juróom mbokk yi kon fa la gën a yàgg dama doon retracer histoire rek fa la gën a yàgg mu def nag 1912 ba 27 ci la wàcc liggéey sëñ Modou Moustapha yónni rakkam sëñ Basiru mu indi sëñ Touba Touba. am na lu murid yi wax demewut noonu de histoire danga koy xam rek walla nga noppi. sëñ Touba tubaab tiimu ko ah kay ndax boobu jamono tubaab yee fi nekk te ñoo ko téye woon résidence surveillée histoire da koy xam. dañu ñëw dafa def constat xam ni sëñ bi génn na àdduna defal ko certificat de décès dellu leen ci archive loolu 27 la am keroog bi mu amee sëñ Modou Moustapha moo am taxawaay bu kenn amul di taawa mat ko sëkk sëñ Makhtar Silla ngi ci kër gi sëñ Cheikh Fatak ko Diop a ngi ci kër gi sëñ Mouhamad Lamine Diop dagana maami kii mu ngi ci kër gi wala baayam maamam mu ngi ci kër gi ngoog sëriñ Cheikh Xarit Dieng mu ci kër gi ah? mag ñëpp daje sëñ moodu Moustapha yëg na ko ba ñëw ci kër gi sëñ Bachiru la yónni moo yóbbu sëñ Touba stratégie la tegal tubaab bi ndax sëñ bi noonu na ko tubaab xaalis rek la gëm dani ko kër gi li fiy ñëw ci xaalis te man yor naa tarika sëñ Touba li mu bàyyi lépp ci ginnaawam xam naa ko li li fi bàyyi ci ci ci ci ay xeeti teraanga boobu kër gi day fees ndax lu waay am indi yàlla jox na ko lépp dégg ngeen sëñ Ibrahima Diop Masar mu ni taran naa sa afwaajan ala baabi daarihi ka màkkata yowmal hajjil akbari lil amal kon kër gi daan fees del sëñ Modou Moustapha ni leen sëriñ bi comme def na ko dañuy bañ ñu envahir kër gi bu ko taalibe yi yegee te xaalis bu bare ci kër gi ñu bëggoon ngeen may ñu provisoirement ñu yóbbu ko dëkkam bi mu moom muy Touba ba yëf yi dal noonu la leen noonu la leen bi ne ko d'accord fu xaalis bi nekk mu wan leen ko ñu ne ca xaalis bay lijjanti ca la lijjantee sëñ Basiru ànd mbokk yu baax ya yëpp ñu jëli ci maam Thierno Darou Mokhti sëñ Ablaye jóob leew naa ko jëli ci oto ñu ànd yóbbu sëñ Touba indi ko Touba denc ko fa mu tëdd ci dëkkam bi mu gënoon a bëgg. kon sëriñ bi diir bi mu dund lépp njaareem la gën a yàgg waaye foofa la sëñ Abdoul Ahad nag gane àdduna jàmbaar ji gane fa àdduna su altine lundi dëppoo ak 14 septembre 1914 ci la sëñ Abdoul feeñ. sëñ Tuubaa jox ko tur turu kenn mëstaam Abdul Ahad yi daal ni ku mën turam sa yaram araamal na safara ku nekk naan Abdul Ahad Abdul Ahad téyel ma Abdul Ahad mën naa tur yi sëñ Tuubaa ko wax sëñ bi wax ci moom ni sama gan gi am naa ci moom yaakaar ëllëg du tas mukk sama yaakaar moom sëñ Abdul Ahad waaye yéen ñëpp ku fekke jamonoom de xam nga ne tasut yaakaar yi sëñ Tuubaa li sëñ bi bëggoon lépp defal na ko sëñ ba mu mat mu mat jàng sëñ bi wax naa leen léegi kéemtaan yi mu ko defal ci njàngam nga xam ni lu mu masa mokkal dootul rëcc te njaal béen gi daa jafe woon sëñ bi def ci moom coobareem ba mujj gi li mu doon mokkal bu masaa di wax alxuraan ñëpp dootuñu mën a téye seen bopp sëñ Abdoulaye mu taxaw temm nag ci topp kilifaam sëñ Modou Moustapha 1932 mbokk yi sëñ Abdoulaye 18 ans la am 18 ans sëñ Modou Moustapha jox ko ndigal dem sañ ci dëkk xool leen tey ñi am 50 ans amuñu sax benn néeg ci seen kër moom 18 ans ci la dem taxawal Daaru Rahman ci ndigalu magam sëñ Modou Moustapha ndax fa la yem déedéet 1932 mu sañcaat fële di kàdd baloo ci ndax fa la yem déedéet 1935 mu daal di dem sañcaat fële ca gelongal ndax fa la yem déedéet 1944 mooy dëkk bi mujj sañci ci ndigalu magam sëñ Modou Moustapha avant sëñ Modou Moustapha di génn àdduna muy Daaru Salaam bukki Barga 1944 la ko sañ bi sëñ Modou Moustapha wàccee liggéey mu laxasu toppaat magam sëñ Fall déggal ko lool demaloon na ko ba Côte d'Ivoire lépp ci ndigalu sëñ fal fu ne mu jaar fa di fàggalu lew di joxe hëddiya di liggéey di jëfandikoo lu lew di kas-kas bul xalaal nekk ci loolu nekk ci loolu di sañ ci dëkk xam ngeen Bayti Dia mu ngi ko sañ ci 1954 di fa jëlee di indil sëñ Mbaram Dieng mu ngi ko sañ ci 1956 Belel la mujj a sañ ci 1970 di fa fàggalu lew di def ci liggéeyu sëriñ bi dem ba yilif ñëpp wàcce boppam wane ni. Touba ku ne mën na ko yor ëllëg waaye nañ ko yore ci li borom dëkk bi bëgg muy lan jàng jàngale jaar ci njub jaar ci islaam ju nañu nañ liggéeyal sëñ Touba te wóolu moom sëñ bi rek la daan yëg dafa am bis mu dem ci dëkk bu ñuy wax Paam Paam mu ngi ci wetu dëkkam bi ñuy wax Kàbb Gay Paam di fa seet góor gu ñuy wax góor gi bilaal ngoom góor gi Bilal Faam waaw góor gi Bilal Faam la doon seet. ba mu ñëwee ñu ni ko góor gi daa génn nekku fi sëñ Abdoulaat ni comme génn na xaaral ma àgg fële seet euh, di Medina Njool seet sama mbokk sëriñ Ibra Wilaan ñu dem di seeti sëñ Ibra Wilaan ba mu fa demee nag am ku dem dajeek góor gi Bilaal Faam ni ko yow de sëñ Abdoulaat ñëw na fi di la seet fekku la fi ba génn mu ngi ci dëkk bale mu ni ah mu ne waaw mu daw dabu sëñ Abdoulaat fekkoon na sëñ Abdoulaye war a génn ñibbi mu ñëw ni ko Mbàkke na ngaa ñëw ci dëkk bi fekkoon ma ma génn ma bëggoon nga jël siwaat ci dëkk bi ñu ganale la sëñ Abdoulaye ni nañ ko bàyyi beneen jamono ndax na may génn mu ne ko ah, ni ma la gëmee sama gëm sëñ Tuubaa yaa ko waral ma gëmee la noonu nga dugg ba ci dëkk bi nar a demaat nii te ma ganale la àggale sama yéene soo ko defee ma génn ci yoonu murid soo ko defee dootuma nekk murid de ndax day mel ni gàcce ci man sëñ Abdoulaye dugg na fi te mujj ma toog ganale ko dañu abdulaat ne tekk di ko xool ba mu yàgg mu ne ko kon nan dellu ci dëkk bi nga ganale ma ndax man de képp ku gëm sëñ Tuubaa ba xas ko gëm demaat ba jëmmi jamono nar a génn ci yoonu sëñ Tuubaa te man ma waral ko loolu de dee moo ma ko gënal waaye du ma ko def mukk génn àdduna ma ko gënal dañ demaat ci dëkk bi nga ganale ma noonu la duggee waat paam nekk ak góor gi Bilal Faam ba mu àggale ko nganam goo kon ku wóolu sëñ Tuubaa ma loolu sëñ Abdulaat wax naa léegi nii amut lu mu ay doomam dina ko bàyyi ci ay xaalis a dem na ba woote fi liggéey ci sëñ Touba dan nañ xayma samay kër nu mu toll dañu xayma jur gi xayma sax samay mbubb yére ñu jaay lépp ma def ko ci liggéeyal sëñ tooba waaye tey de ku toog ak doomam ji da nga xam ni sëñ Touba matal liggéeyal ku dugg ci tàntam bi ak richesse bi ci tànt bi macha allah nit nitu qualité yi la wuy si da nga xam ni yow sa baay liggéeyal na sëñ Touba bu wér waaye nag ci loolu nga nekk rek am kóllëre baax yiiw ba nga fi toogee ba léegi ku yëkkati kàddu teral nga ko ngir sëñ Abdou Lahad sa wéeju ci bis bii nga xam ni bis gën a ci yow bis bi ndax sëñ Abdou Lahad teral ci boole te ñaar fukki fan ak ñett ci korite gi ci la gane woon àdduna ci la sëñ bi ne sama yaakaar teg naa ko ci moom di ko tas te tasut yaakaaram kon nag su bis bi ñëwee war ngaa dajale ñëpp ñu wuy si la santale la sëñ Abdou fàttali ak dundam royaat ci doxalinam delluwaat ci njàngaleem lu ñuy jàngee ci sëñ Abdou Lahad mbir moo mën a nekk te dëggu woo doo ci am ndam dëggu sëñ Abdoulaat léppam dëgg la woon lu ñuy jànge ci sëñ Abdoulaat ak dogu mbir moo dugg te amoo ki détermination doo ci am réussite lu ñuy jànge ci sëñ Abdoulahat wóolu ku baax wóolu gi mu wóolu woon sëñ Touba ñëpp ko mën a waat lu ñuy jànge sëñ Abdoulaat une bonne gouvernance voilà le mot yéeg ma koy fàttali sëriñ Seex Sidi Ndiaye une bon gouvernance nga xam ni wax naa leen léegi bi mu taxawalee këru mag moom dani përngalu saabu saabu bu ma doon jëfandikoo man suñu abdulaat përngal bi ci des sax su ma wàccee liggéey bu mu dugg sama kër moomuma kër gi kat dama fee mag toogal fi sëñ Touba te titre xalif général sax neexu ko woon wax na ko ci kaset mais na sàllaaw de xalif général boobu moom gënalu ma man daal damaa bëgg ñu xam ni rek kuy liggéey sëñ Touba laa ndax xalifa du dara lu dul koo xam ne yaa aye profaatu yaa gën a ci déegi rek wane bon gouvernance bi mu taxawalee këru mag moom dafa tànn ñeenti témoin sëñ bayti faati dem moo nekkoon greffier bu njaareem sëriñ seex jaxate mu sëñ satu jaxate sëriñ am satu mbàkke mu maam cerno borom daarul moxti ak sëñ moodu maamun ñang ñeenti ñii la woo ñu ñu seere ko mu ni su ma fi jógee sax përngelu saab bu ma fi toppe ku mag ci njabootu sëñ Tuubaa yilif ko na nekk moomeelam ba keroog muy wuy ji sëñ Tuubaa loolu defe naa mooy bonne gouvernance lu muy santaane moo cay man bi muy wootee fii mbirum milliard ci boobu jamono kenn xamut milliard dañi sama téeméeri million laa ci dawal man avant may woote ngir leen lan ñu liggéeyal sañ Tuubaa te tay nag jamono jox na ko raison ndax tey boo gisee yi ñuy liggéey lépp sumbam la woon doom ju baax ji sëriñ Muntaxa lii muy liggéey di université sumbug sëñ Abdou Lahat la woon xam na ni dëkk kenn du ko tabax ci waxi kese da ngay jàng dëkk ku ko bëgg a tabax da ngay am xam-xam xam-xam mooy régir monde bépp tey demal dans les pays les plus développés foo ci dem tey xam-xam lañ primé surtout dañu fonk ko xam-xam mu daal ñuy dugal ci université bu mag ñu faawu ñu am jàng bu mag ngir ñu xam suñu diine xam fi ñu teg suñu tànk ndax sëñ Murtada daana wax ni ah ku jàngul de buur la rek ah ku jàngul buur la parce que li ko neex rek la xam di xam li war parce que luñ ko lu war moom buur la rek soo gisee tey ba tey Sénégal ci yenn wàll yi ñi ma ko sañ ñu nekk en retard nous sommes en retard il faut qu'on l'admette nous sommes en retard lu tax ñu nekk en retard parce que éducation moo manqué léegi de trop ci dëkk bi ndax réew pour mu dem ci kanam yi koy suqali yóbbu ko ci kanam daf cee bokk wàllu justice atte bu leer daan di am punition di am Sénégal dañoo bàyyi laisser faire bi rek lu waay lu neex waay def moo tax discipline day manqué gis nga boo demee ci circulation bi dañuy dawale dara baaxu ci da ngay am priorité sax yow yaay far taxaw parce que dañuy bëgg sa yàqu ko parce que lu neex waay def dañoo bàyyi laisser faire ci wàll yëpp. wàllu dëkk tam éducation da ci am ñu jàngal nit ñi parce que nit soo ko jàngalul luy civisme luy éthique luy moral du xam lu muy def lu ko neex rek lay xam sëñ Abdoulaye nag yooyu la taxawoon ni faw université am. ñu yar nit ñi jàngal leen ba ëllëg ñu mën a nekk ñu yeewu xam nu ñuy defare seen dëkk moo tax ma wax ni bu ñu ko joxoon àdduna waxuma senegal mu defar àdduna bi yépp ci bon gouvernance fexe ba gisul cëram bu rëy bi ko yàlla jox lépp cërub sëñ Touba bi gënal ko ko ñim bokkal sëñ Touba ku ci nekk mu lay xoole jëmmi sëñ Touba bëgg la lool xanaa xamoo ni kërug sëñ Saaliw moo ko tabaxal ba ba gis na sëñ Saaliw daa dëddu àdduna wut lenn dëddu àdduna rek mu am benn guddi sëñ Abdoulaat ànd ak alaaji Ibrahima Ñang alaaji Ibrahima Ñang mu nga dëkk Mbuur wax na Yaasin Fall maa ngi ziar Fall jërëjëf Adja Yaasin maa ngi lay ziar mu alaaji Daam Fall men mu baax mi ah kooku xam naa ko bu baax waaw ah, Fall jërëjëf Fall alaaji Daam Fall mu fexe ba tabax kër sëñ Saliou booba alaaji Ibrahima ñang la àndal xam ngeen alaaji Ibrahima ñang moo jur ñoom dabbus ñang ak ñoom Demba Sall ñaa bi jiite woon jaraaf seen baay mu ngoog moo jur ñoom sëñ Saliou ñang mbuur ak ñoom Maysa ñang bu bisis ak Lamine ñang bi jiite woon chambre de commerce bu dakaar seen baay laa la wax alaaji Ibrahima ñang la tudd ci mbuur tefes conférence naa fa ba tàyyi ci sëñ Saliou maak bàyyi Saliou Touré booba màggeegul nii moom moomoo moo ànd ak sëñ Abdoul Ahad dem seeti sëñ Saliou ci guddi gi booba kër sëñ Saliou boo taxawee da ngay gis nii seng yeeg sàkket bi dara defu ko ci di daat waaye alaaji Ibrahima Ñang di waxtaan ak sëñ Saliou day xaritam lool bi mu wàccee liggéey 87 sëñ Saliou woo yóbbante teraanga yëpp moog sëñ Abdoul Ahad yi ñu ko dëjal ba mu nee ko mbàkke sa kër gi xanaa euh, waral nañ koo soppi de dañ saaliw ni ko waaw bu jamono demee ba gën a neex di dañ ko soppi yéene nañ ko sëñ abdoulaat loolu ni toq ci noppam ba mu génnee dana ko dama lay neexale yow mi fexe ba ma dégg ni sëñ saaliw bëgg na nanga man ko ci liggéeyal la sëñ Tuuba ah ca la yónnee ay betoog lépp ñu defar ko daal ni sëñ saaliw ku ko topp ci dëddu addunaam ji ëllëg di ko layoo dañ ko war a taxaw ndax dafa dëddu àdduna te sëñ saaliw mësta dara lu masaam sëñ Tuuba la koy jox ak njabootu sëñ Tuuba gi ay magam rek la koy séddale du ci dundal njabootam jox lépp sëñ Touba waaye li mu nangu ci xaalis monsieur su ko nangu nag addiyee ju nekk dikkal na sëñ Saliou ndax lu mu ma saam rek jox na ko kilifaam yooyu dale ko ca sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou sëñ Abdou Lahad sëñ Abdoul Khadr lu mu am jox leen kon sëñ Abdoulah dafa liggéeyal sëñ Touba liggéeyal taalibe yi sëñ Touba yi ndax daana wax ni képp ku liggéeyal sëñ Touba taalibe lay fay waaye ku liggéeyal taalibe yi tamit sëñ Touba lay fayal boppam mu nekkoon ci loolu am lan teeg ak temporel ku ne ma lay wax dëgg dégg ngeen Senghor bi muy jóge ci réew mi defe naa 81 la bi muy jóge ci réew mi ba mu ñëwee tàggook moom ba wax àggal ni ko damay jox réew mi Abdou Diouf ñëwoon di la wax maa ngi dem sëñ Abdoulaye dani ko waaw yow de lu lu la réew mi sant benn na nga leen ko sant téeméer ndax ñoo la fal ci seen i carte ñoo la jàppale ba nga mën a réaliser loo fi def kon dëggam koo mën a doon dalay wax dëgg nga koy dégg xamu ci buur àdduna daana wax sax man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoo la waaw kenn jaraluma kon ci dëgg rek la nekkoon yàlla na nu ko yàlla fayal te yàggal fi xalifaam sëñ siidi soxna kinne ñu ngi lay ndokkelaat bu baax te ñaan sunu boroom mu defal la fan wu gudd ak wér dolli sa teraanga dolli sa sutura yàggal fi sa sang bi alaaji Idrissa caam nuyu tam ñi fi teewu ñëpp santaat oustaz Abdoulahi mbaay mu baax mii sunu nijaay ji nga xam ni xam-xam bu rafet la léegi laa ko wax ni sa tafsir rek moo may daaneel ndax dama bëgg tafsir boo xam da ngay boole dégg jamono waaw dégg jamono daa baax ci tafsir booy jàngale mu ànd ak euh, pédagogie kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal kóllëre la ci kër gi at mu jot ñu fekk ko fi mbokk la ci kër gi waaye sàmm na ko borom xam-xam nag bu sàmmee kóllëre nii wàcc na yàlla na yàgg nu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp santaat sunu xarit sëñ Assane Boub Gawlo waaw di kenn ci man ñu yàgg lool muy ko baax maa ngi koy ziar di ko bége sant ñëpp ak mbokk yi ah, di leen ñaan nag sunu mbokk mu baax mii nga xam ne yàlla dogal ci ndogalam yàlla muur ay gëtam te nag kuy dund la ne xaj na ci ah yàlla moom muur ay gëtam mu waroon a taxaw ci mbedd yi di def ni ñëpp waaye ci tant yi la ko sunu borom xiir tant yi Serigne Touba yi tant yi Alaaji Ma tant yu baax yëpp ñuy wax lu baax fa lay dugg. kon nag la ñu waroon a fekki def ko ngir am ci yàlla su ñëwee fekk si nu war nañ cee góor ma bëggoon ku nekk làmb ci sa addiya loo jekku rek baax na nu jox ko sunu mbokk mii ngir yàlla mi nga xam ne moom muur ay gëtam jox ñu ay gët ñuy xoolandi kon nañ ko def te yàlla rek tax ndax bis bi bisu tuyaa bala ñuy fàttali suñu abdullah te lu mësaam moom joxe na ko ci lislaam kon ñu dajale dara rek jox ko ko mbokk yëpp ziyaare ko te yàlla tax ci barke sëñ Abdoulaat maa ngi ñaan ko ci joxe yàlla na sa yëpp faju li gën a jafe say aajo jaaxal la yàlla na ko yàlla faj ci barke sëñ Abdoulaat ak bis bi kon na ko ñëpp dajale addiya ngeen baal nu àq baal nañ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ah jërëjëf sëriñ Abdoulahi Diop Bichri mbokk mi nañu ko dajale addiya Cheikhul Khadim bisu sëñ Abdoulaat kenn fi am yaakaar muy tas yaakaar googu sëriñ Abdoulahi Diop Bichri wax